Zara lu baax kenn ko ci tàggoo na ngeen garab gi sax na leen indil da madame euh, le ministre Zahra Iyane Thiam li nga xam ne moom la bëgg ci suñu commune say jii man bu ma taxawee fii ne damay politique ci biir euh, commune Sicap moom moo ko waral parce que dañu gis lu ñu ko jaral mu nekk nit ku baax nit ku xam liggéeyam ki nga xam ne mi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale mag ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale tamit retraité yi te fonk na SICAP SICAP la dëkk SICAP la am te buñ ko ko joxee ne naan xam ni jox nañ ko koo xam ne ni nañu liggéeyal suñu commune du ko retraité duñ ko regretté incha allah kon boog ñu leen di ñaan yéen ñu nekk SICAP yéen ñu nekk commune SICAP ngeen voteel madame la ministre Zahra Iyane Thiam extension yëngu na li muy calme calme calme ñu leen di tëkkaleeg ay ay ay ay ay ay ay ay tubaab daanaka tey ñëpp génn nañu kër yëpp génn nañu lan moo ko waral mooy Zahra Iyane Thiam Zahra Iyane Thiam yàgg a dugg ci koñ bi yàgg fee jàppale mbooloo yi jàppale association féminine yi jàppale jeunes yi di jàppale yi tamit këru diine yi jumaa yi ak jàkke yi nekk Liberté 6 yëpp mu dugal ci loxoom ba xam ne tey fu mu dugg du am gàcce fu mu dugg rek jaaraama la fay jëlee alhamdulilahi rabil alamin ñëpp fas yéene ko jàppale nag ci lii mu dëgmal di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ci ndam defal ko ndam lu kawe njortam ñun ñëpp ñu ànd ko fekke ko kenn bañ a manqué te mu muur ñu muurloo ko yi tamit liberté 6 extension yëpp fekke ko te gis ci seen bopp ndax projet yi mu tëral wax dëgg neex yàlla gis nañ ci suñu bopp ba tax ñu koy accompagner. ñu defal lu taxawaay bi. di gis ni yéen a ngi jàppale madame euh, le ministre Iyane Thiam bon comme tubaab ni mu wax rek tout ce qui se met est mieux que quelque chose ku gis taxawaay bi gis mbooloo mi xam ni mu ngi def liggéey bu baax ci localité bi ah dañ koy ñaanal rek ñun nag euh, nous sommes des étudiants de la de la SICAP voilà on vous estime di la ñaanal li nga bëgg yàlla nga ko am. waaw ah, di woo waa localité bi tamit ñu jóg voter la parce gis nañ liggéey bu baax bi ngay def ñun nag sexal nu lem pour ñu yow timtalee du wax wala dara doonoo gis ne sa liggéey dafa rafet yaa ngi jàppale koñ bi moom moo tax ñu ñëw am idée bu rafet pour seedal la li ngay def si koñ bi voilà nun nag ay étudiant lan te xam nga ku wax étudiant xam nga tey noonu la demee nag <laughs> voilà waaw boo gisee it ñu ñëw tamit jël euh, micro bi di wax ak yow comme euh, étudiant ñuy dund parfois day soxla ay aide et ça ñu doonoo nekk en phase euh, d'obtenir d'obtenir notre licence à INSIP waaw le 22 bi samedi incha allah moo ni suñu suñu kii projet pour jot suñu licence di ñaan nga jàppale nu parce que ñun amul lu dul suñuy suñuy waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla tey ñi ngi toll fii ci Liberté 6 extension bi ñu tàmbalee campagne bi ba léegi ñu ñëw nag Liberté 6 extension am fi mbégte lool ndax gis nañ fi ñaar ba ñetti mbir yu fi xew mbir mi ci njëkk mooy waa Liberté 6 extension tàmm ñu leen woon di gis ci xumb-xumb yi ak ci yëngute yëngute yu mel ni waaye campagne bi liñ ci nemmeeku mooy ñoom ñëpp a génn taxaw kuréel desul daayira desul association desul ba ci étudiants yi fii ci état bu Liberté 6 extension liñ fi gis étudiants yi dajaloo ñëw wax mbégte bi ñu am ci li ñuy def mais surtout yaakaar ak ndimbal li nga xam ne ñi ngi koy sàkku ci ñun bés bu ñu yoree mairie bi xam nañ ne ñun ñëpp ne enseignement supérieur bokkul ci compétence transférée yi nga xam ne dañ koy joxe ci mairie waaye lii am mooy mairie bi war na mën a créer ay conditions yoo xam ne comme ni mu ko defee pour tout tànk yi def ko pour ñi nekk ci formation professionnelle bi war nañu mën a créer ay anam yoo xam ne ay mbir yoo xam ne aussi lépp luy yombalal xëyu ndaw yi dina fa mën a jaar moo tax ñu ngi rafetlu bu baax ñoom tamit seen engouement ak seen jàppale biñ ñu wan ñuy rafetlu aussi li nga xam ne dégg nañ ko ci kër yi te muy d'abord seeni soxla ndax fii cité bu rëy la bu mag la waaye soxla nañ fi pavage yittewoo nañ ñu ko wax nañ ñu ko lu bari ci kër yi wax nañ ñu aussi yeneen yu ñu yittewoo yu jëm ci sécurité yu jëm ci euh, éclairage ak yu jëm ci bërëbu diine yi ndax bi ñu ñëwee imam Habib lii dalal nañu moom nga xam ne mooy président imam yi ak ulema yi nekk ci Sicap Liberté bi yëpp mais dem nañ aussi ci jumaa wu maam Ansu yooyu yëpp nekk ay bërëbu ñaan yoo xam ne rafetlu nañ ubbil bi ñu ubbil dalal ñu ñaanal ñu kuréelu jigéen ñi ndaw ñi responsable politique yi surtout ñoom ñëpp taxaw nañ ak épouse yi nekk ci camp bi maanaam daal fii ñëpp dajaloo nañ doon benn say wañ ñu ne liñ leen euh, indil comme projet de mandature doy na leen mais surtout li ñu mën a jàpp mooy gannaaw bi leen projet bi doyee ba pare am nañu yaakaar ne bés bu ñu faloo aussi engagement yi ñu jël danañ ko def te loolu lu lu ñu amal solo la aussi ndax ñaan nañ sunu borom mu matale yéene boobu. juróom-ñeenti waaw loolu moom duma ci def dara ndax nag euh, xorom moom yàqul lu lu cin fees fees xorom xaj si te gars yi dañuy faral di wax roof yàqul cin yoof roof jën kon nag ñoom wax wax ju saf jooju dañ koy jàppee kaani rek bu ñuy toj waaye te day safal rek du ci doon dara mais li ñuy bañ ndax campagne électorale mook looloo ànd li ñuy bañ rek mooy mu nekk xiiroog ngaayoo ndax duñu ay Euh, ennemi comme ni ñu koy waxee ay adversaire rek lañ lii bu paasee day jeex te campagne électorale liñ ci taamu mooy xeexee ci wàllu programme nga teg sa programme ma teg sama programme ñu ciy xeex ku nekk naan sama bos a gën waaye man bi campagne bi commencé ba léegi gisuma ku génnee programme ñun nag génnee nañ suñu programme ñi ngi xaar yeneen programme yi ku ma woo si xeex nag danaa xeex ak yow mais ci wàllu programme man programme lay xeexee te nag bu élection bi paasee ba ñu xeex xeex bi ba gañe ko sama beneen xeex bi may somb nga xam ne dama ciy ngemb ba dëgër ànd ak population Sicap mooy li ñu wax ñu wàccoog ñoom parce que askan bi woon nañ ko soxla nañu